dal leen ak jàmm ci tas info aboneel ngir dara bañ a la raw lu jëm ci wàllum diffamation day mel ni daa mujjee xew ci réew mi gannaaw ki nga xamante moo di Ousmane Sonko ki moo di Fou Malade moom itam tey jii ca ko daan ca fee ca moom moomee gannaaw diffamation moom itam defoon na ko ci ki nga xamante ne moo di Bouna Manel moom moomee moo deman déposé ji ab plainte waaye nag gannaaw taxaw ma ci kii di doyen des juges moom mi di kii di Fou Malade moom moomee mujjee na ñu daan ko lu toll ci juróom-benn weer eh, yu kaso yoo xam te avec sursis la maanaam du ko tëdd ak lu toll ci juróom ci ay million yoo xam te ne moom war na ko dàmpee ki nga xam te ne moo di Bouna Manel Fall loolee nag nekkaat beneen coono ci li moo di ci réewum Sénégal ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum diffamation ndaxte ñu bari dañoo mujjee ni kon mbaa kenn dina mën a tudd nit ci lépp bépp émission boo xam te ne yaa ngi koy defar defati ngir lii man laa gaal mu di lu jëm ci wàllum diffamation te it leneen li moo di diffamation mbaa du dem ba mujjee atteindre ñi nga xam te ne ñoo di way journaliste yi ba information yi nga xam te ne sax moom la war di joxe bu boobaa dootuñu ko mën ndaxte koo ko defati joxe information ci moom mu fëgg la li nga xam te ne moo di wàllum diffamation ci ni dama diffamé beneen gàllankoor bu nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy baybayal waale mën naa indi lu bëri bëri ci ay coono ci ñi nga xam te ne ñoo di way taskati xibaar yi wala ñi nga xam ne ñoo di ñi yëngatu ci wàllum langue politique bi ngir ni boo tuddatee kenn rek bu boobaa mën na la déposer li nga xam ne moo di lu jëm ci wàllum diffamation diffamation te bu booba daan bi mën na rëy rëy goo xamante ne ñii ñëpp mën na leen a xañ lu jëm ci li nga xamante ne moo di seen candidature comme ni nga xamante ne noonu la mel ne lu ko waaj a xañ ki moo di njiital Pastef di kii di Ousmane Sonko gannaaw ba ko daane lu toll ci juróom benn weeri kaso yoo xamante ne du ko tëdd loolee nuru ni loolu dina laal li nga xamante moo di éligibilité ci li nga xamante ne moo di ci élection yi ñu jëm mu di 2024